jaadu bu ñu wooree ba heure bi ñëw seet si ko waxtaan ak moom sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam maa ngi leen di fay bu baax di leen nuyu yéen it waa BP Actu nga xam ne yéen a sàkk ñëw fii si man maa ngi leen di nuyu di leen gërëm te di leen wax bisimillahi waaw. bu ñu doon laajte tey dëggantaan kan mooy sëñ bi lu ñuy wax. waaw Chérif Abdourahmane la euh, jaam bu xeebu la taalibe la boo xamee ne eh, fi mu jokk mooy ci kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Sëñ Tuubaa ci tukkeem bu rëy boobu mu demee woon gànnaar bi muy dikk eh, sunu maam bokkoon na si ñi mu àndaloon ñëw eh, sunu maam jooju nag Sëñ Tuubaa moom da ko dooma woon tudde ko soxna Tilal ya Mbàkke jox ko soxna Awa Bousso ci loxol soxna Awa Bousso la yaroo ba yàlla dogal mu mat a dugg nekk sëñ bii daal di koy jox chérif bu ñuy wax Abdin doomi Tirbalit ñu di leen wax chérif Téléglagma mu am si ku ñuy wax mariyam taaloo ko si teg si Xaybullahi teg si Aminatu caatloo Xadijatu Aminatu nag moom may taawam looloo ma boole ci kër gi waaw. papa ñu la doon laaj yan taxawaay la Baye war a am ci biir koor. xanaa nekk si Baye Fall moom li ko li jëkk li jëkk ci taxawaayam mooy di jëfe ndigal di bàyyi ay tere jël noppam bi ne ko tegg si ndigalul kilifaam. jël ak mbañam teg ko si mboolem lu kilifaam di tere ndax nag lenn lu war Baay Faal lu bokkul ak di jëfe la ndigal la ndigal ba sëñ bay santaane ak di bàyyi ay tereem amut loolu moom moo gën a kawe si lépp loo xame ne mooy yoo si yoonu Baay Faal loolu bokk na ci li gën a kawe bi ci des mooy di di jëf ak bay Faal jëf lañ koy xamee di jëf lu sa borom dogal sëriñ ba soxla ko balaa koo soxla fekk yaa nga sax su ko soxlaa nga ne ko noppi nga si loolu mooy ak Baay Faal ak Baay Faal moom bokkul ak li nga xamee ne moom laa gis ñu baree bari di ko doxal te di ko tuddee si ndakaaru fii bokkul si loolu bokkul sama gis-gis Baay Faal moom set set sell ña nga xam ne ñu ngi leen koy tuddee te soo demee Mbàkke fekk leen fa ñu ne sa liggéey ba te amuñu jot ngir ndogu ya ñooñe moom soo demee soo nee Baye Fall yi da nga fekk Baye Fall yi Baye Fall yu ko dem Mbàkke fekk leen fa fii ñu toll benn Baye Fall bu am jot amatul benn Baye Fall boo xam ne am na jot amul Baye Fall yëpp ñu nga sa ndogu ya kenn ku nekk fii si sow te demoo sa ndogu ya yaa ngay bëgg di lijjanti loo yóbbu si ndogo ya yaa ngi koy fexe loolu ngay lijjanti loolu ngay fexe mooy sab yéene loo yóbbu si ndogo yi rek loolu mooy sab yéene waaye taxawaalu gi moom bokkul si liggéeyu Baye Fall yi fi mu ne taxawaay lañu mën a ràññee ab murit mooy jaamu yàlla jaamu yàlla ragal yàlla topp yàlla fonk sa diine fonk sa kilifa fonk sëriñ bi bàyyi sa xel si ndigalul sëriñ bi ak na ko fi sëriñ bi santaane woon di jàng alquran tey jàng xasida tey sikar te benn waxtu bañ laa raw te lu yàlla digle nga ne si lu yàlla tere nga ba ko tey dem Touba di siyaare ji ak dellu si tey dellu loolu mbokk na si ràññukaay yi ndax ku mel ne Sëriñ Touba amut si ñun mën naa am feneen nang xëj na waaye ñun si ñun murit yi gëm-gëm fa mu toll si sa borom ku mel ne Sëriñ Touba amut te dootul am lu ni mel ni dootul wàcc yàlla nag bari le na te yaatule na waaye Cheikh mat Bamba Xaadimu Rasuul lu ni men moom amut te dootul am. ñun jeunesse bi fi mu toll dañuy jël mbirum Baye Fall ñu koy foowee sax amaana naan Baye Fall laa du wóor Baye Fall laa du ma julli yow mi nga xamante ne boo waxee réew mi déglu la boo waxee xale yi déglu la ban message nga leen di lancé. képp koo xamee ne la waral ak baay Fall dëgg dëgg dëgg newoo si bee boo nga fexe dem si li nga xamee ne moo lay muccal lëf moom ku ne duma si bokk day fekk la la la ñooña. ku ne si laa bokk day fekk lañu ñu see digle nga ne si waaye su fekkee la war Baay Faal newoo si la war ak Baay Faal lañ siy digle newoo si doxoo si waxoo si bon demal nga defi leneen lu bokkul ak loola te bàyyi loola Baay Faal moom duy caaxaan Baay Faal duy tappale bàyyi Faal du ñàkk jom am na loo xam nag ñu bari dañ koy def ñàkk jom rek a tax bëgg lu yomb naan dem naan bàyyi Faal lañu te Baay Faal la gën a jafe si na ndax Baay Faal lay tënku. ci dëggu rekk lay tënkoo si ndigal képp lay tënkoo si jëf rekk lay tënkoo waaye nelaw ba naaj wi tàng jëpp nga yeewu takk say jóoloo li teg si mbedd mi la jël nit ñi naan bàyyi faal nga doo bàyyi faal doo dara ka ngay tuddoo sax naan mooy sëb sëriñ moo la yebal du dëgg ndax sa sëriñ boobu xamul la sax soo demee ndax bépp sëriñ bu nit ñi yaakaar te mu ne fi te yor mbooloo na mu yore mbooloo ma nga tënku seen ko sëñ Tuubaa santaane amul kenn ku yor mbooloo tënku ci leneen lu bokkul ak seen ku sëñ Tuubaa santaane bon ku ne fii di def lu mu yëgul yaa ne sa bopp waaye moom moom ma nga sa la koy war ak la ko yàlla sant waaw loolu mooy li am. naka nga gisee li nga xamante ne ni moom moo dal ci njabootu cantaaku ni moom moo dal ci Cheikh Béthio Thioune. lu tiis lu tiis lu metti jàmbaar dëgg ñu ngi koy jàll cantaakun yëpp. di ko jàll yoonu murit gépp rawatina kër sëñ Saaliw gépp ñu ngi leen koy jàll man mii keroog bi yàlla dogalee ma dégg ko fekk na yaram wi xaw a jagadi tuuti ba mëne ne su jóg waaye sa saase la daal di jokkoo ak taawam ba di sëñ Saaliw gël tàppe waxtaan ak moom lu yàgg jaal ko yóbbanti sama njaal teg ko si loxoom ngir mu jaaleel ma ko njabootug Cheikh Béthio gépp Cheikh Béthio dey aw royukaay la woon ci jëf ak jëfin ak na muy jëfe ak fa mu teg sëñ bi waaye sëñ bi fay na ko joxoon na léppam sëñ bi waaye sëñ bi sagal na ko sagal goo xam ne àddina bépp teg nañ seen bët ku liggéey li mu liggéey du am li mu am li mu am liggéey képp moo ko may ak jëf boolewul woon sëriñ Saaliw dara sëriñ Saaliw it ber na ko dimbali na ko ñu ngi ñaan yàlla sam borom yàlla na koy yàlla gannaawam yàlla na dàq ci njabootam yàlla na yàlla teg leen loxo yàlla na leen Serigne Saliou yiir malaan ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne lépp mën na ko lépp Serigne Touba mën na ko lu ne li si kanam li si gannaaw li nu gis ak li nu gisul lépp la Serigne Touba man Serigne Touba amul lu mu noo gisee tamit coow li nga xamante ne moom moom la bàyyi ci ginnaawam. ginnaaw bi muy dëddoo. coow yooyu day xam nga kër gu nekk dana am dana am lu fa am kër gu nekk ak i waaye li wér wóor mooy du doon luy jëm fenn ndax ñoom ñëpp ci të ci dëgg lañu tënku ki nga xamee ne moo fi bàyyi ko jàmbaarul islaam la woon jàmbaar la woon ci yoonu murit jàmbaar la woon ci kër Sëñ Saaliw te tegoon na mbooloo mépp siw yoon woo xamee ni suñ ko tegoo te teggee ko wunu du fa du dara du fa yàqu te yaakaaruma it foofa dara yàqu fa ndax ña fa nekk te mu jur leen ñu dig njabootam ay taalibe la ñoom ñëpp sëriñ Tuubaa la ñu gëm sëñ Saaliw la ñu gëm sëñ Cheikh Saaliw moo fi nekkal sëñ Saaliw bon li nga xamee ne moo am te kër gu ne lu fa xew looloo fay xew mooy moom mi nga xamee ne mooy Cheikh Béthio dëddu na ab taawam a ngi fi ab taawam mooy toog rek yëpp takku bopp ci gannaaw taaw ba ñu àndoo jébal seen bopp sëriñ Cheikh Saliou mu jébal boppam sëñ Tuubaa di sëñ Muntaxa liggéey bi jëm kanam moom mii nga xam ne mooy sëñ Cheikh Saliou ñun ci suñu xam bopp ak li ñu xalaatal suñu bopp ak li yaakaar ne kër gu ne looloo fa xew dañu xam ko ci kër gu ne sëñ Cheikh Saliou Thioune moom mooy taawub Cheikh Béthio Thioune bon mooy xalifab Cheikh Béthio Thioune tey ñun moom la xam. bon nag foofa moom coow mënu fa am ndax njaboot gépp benn lañu tarakam yëpp déggal nañ ko. yal na yàlla musal leen ci cat ak yàqu ak yàqule ci barkeb Sëñ Tuubaa amin ñu gis na chaque année dañ koy amal ci vingtième jour koor muy laylatul xadr initiative boobu fan la jógee. maanaam guddig maam Cheikh Ibra Fall gi moom ngay wax vingtième jour du mois de Ramadan initiative boobu mu ngi jóge si man ci Côte d'Ivoire laa ko tàmbalee Abidjan daayira bu ñuy wax daayira ajame ñoo ko daan def ku ñuy wax sëñ Modou Pen nekkoon porte parole sëñ Mourou Aminta si jamono jooja. ñu daan def su guddi maam Cheikh Rafal jotee ñu di ko def ci daayira ba may dem di leen fekk di ànd ak ñoom ñu dem ba si yàgg ma tàmbali ko sam bopp fii ci Sénégal su amee ma ñëw di ko fi def. ba ma koy jëkk a tàmbali si at mu njëkk ma benn baas laa baasoon maa ngi ci 32e édition fii ñu toll saa borom nag dogal na ñun suñu bis ñun bi nga xamee ne ñun moom la ñu taamu Chérif Abdourahmane Fall la akum njabootam ak képp koo xam ne aju nga si moom te di ko bëgg a jàppale si ab bis bis bi mu taamu si at mi si di ko def mooy guddig maam Cheikh Ibrahima Fall gii moom lañuy ñuy def particularité yi ñeneen ñi si des ñoog ñëpp ko bokk màggalug Touba gi ñoog ñëpp a ko bokk ay murit lañu ku nu takk yóbbu ñu tubaa ku nu dàq njëm tubaa lu ñu am yóbbu tubaa Touba képp lañu am bon màggalug Touba gi ñun murit yëpp a koy defandoo. gàmm gi ñun jullit yépp a ko bokk di ko defandoo guddig maam Cheikh gi nag maag ñeneen ñi nga xame ne dañoo eh, eh, eh, jàppoo si maam Cheikh ak amub cër si maam Cheikh ñoo ko bokk di def ñun ñu di ko def fii at mu jot àdduna bépp dina fi fekk si ñu di ko waajal it te nekk ci te fas yéene ko incha allahu rabbi su soobee sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima bu ñi nga xamante ne ñoom mooy ay xale nekk ci réew mi ba sax ay mag koo ci wax mu ne la man Chérif Abdourahmane Fall Tilala mooy sama sëriñ ñu soxla tamit ku ñu yee soxla ku ñu yedd ban message nga leen di wax ñoom it. waaw man nag ñi nga xame ne dañuy wax ne si man la ñu aju yàgg naa koo wax nit su bëggee jëm si kanam ñaari yoon rek a fi am xàll wi nga xame ne jëmul si dëkk bi ak xàll wi nga xam ne si dëkk bi la jëm. soo bàyyee xàll wi jëm si dëkk bi nag xàll wa ngay jaar du la jëmale sib dëkk soo jaaree si xàll wi jëm si dëkk bi nag danga nga la yeggale si dëkk bi ku bëgg a jub da ànd ak ñi jub ku bëgg a baax dangay ngay seet ñi baax nga ànd ak ñoom ku bëgg a dimbali say waajur tey tut tànk say waajur jur la nan la war a jure jur la fan la war a jure nga dem ñu toppatoo la taxawu la ba nga màgg ba tëstal sa dalu baay mu jot la nga war leen a wàcc si coono fas yéene takk sa ndigg te jaamu ji yàlla boole kook liggéey dimbali say waajur da ngay wut jom waaye soo toppee naan sàngara ak tox yàmba ak taxawaalu ci mbedd yi di bëgg am jom doo am jom te da nga toroxal say waajur ci gàcce kepp li ñu dëkk te nit nag war naa góor góorlu teg bëtam si ñu ko tane ngir su ëllëgee mu mën a mu mën leen a roy nga ne moom ngay àndal koo xam ne su summee tubéy ji su solee tubay ji summi ko ba si gën a dëgg li mu bàyyi ko fa suy wax di waxee neneen nu bokkul ak wax wu yiw su jëf di jëf jëfee nu weneen wu bokkul ak jëf ju yiw amul yar amul teggin amul sutura xamul mag xamul nu muy waxee xamul nu muy defee koo ànd ak moom it da ngay àl ko rek te sànkoo te nag ñaar am na ku nekkul si li sëñ Tuubaa santaane ba faatu doo gis sëñ sëñ Tuubaa moom fa muy nekk yowmal qiyaam wóoyu du fa àgg bandi du fa àgg ku weddi woon digalu yàlla yi doo fa àgg Cheikh Ibra Fall fa muy nekk wóoyu du fa àgg nan góor góorgóorlu te delloo suñu xel yi te yeewu te xam ne ñii ñu yaakaar àddina ak àllaaxira ñoo moom lépp waaye dañ koo jaarale si yoon ku wàcc yoon wa doo àgg si ñoom jërëjëf. ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu la doon seetaan ci BP Actu. sunu wasila di sëñ Cheikh Mountakha Bachirou. di suñu yaakaar di yaakaaru kudub murit tey te yaakaar Serigne tubaa di koo xame ne sa boroom dogal na sagal na yoon wépp dimbali na yoon wépp kenn xamul lu ko naqari gëm sëñ Touba ba jeex takk su waxee ñaari baat rek nga yëg ne murit dëgg ngi ñaari baat képp su ko waxee sëñ Touba nga yëg ne murit dëgg ngi wax na baat bu am solo nee na àddina ak lu ko wër gëm sëñ ak bëgg sëñ Tuubaa moo ko moo ko gën te wax na dëgg ñun foofa lañ ne àddina ak lu ko wër ak lu mën a xew sëñ Tuubaa ñu gënal lu yàlla bind ci àddina gannaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuubaa ñu gënal ñàpp mënu gënal lépp te kooku nag ku ne sañ na ko ku ne am nga ku la gënal waaye ñun Seexul Xadim ñu gënal moom rek la ñu yaakaar moom rek la ñu doyloo àddina ak àllaaxira lu dul sëriñ Tuubaa ñu ko gënal wasalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu yal na yàlla def ñu kooru jàmm ñu àggale ko si jàmm génn si ak alhamdulilah rabil alamin fekke ko ay déwéni déwéni déwéni déwéni déwén tey ñaan sëñ Cheikh Jëmb Faal moom maam Cheikh Ibrahima Faal sagub Cheikh Ibra bi yàlla na yàlla saxal ko te yàlla may ko wér ba mu àggale naalu maam gi ci barkeb sëñ Tuubaa sagub Baay Faal yépp la jërë leen jëf wasalaam